sëriñ bi dana sëkk tey ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey bismillahi rahmaani rahim taala wa barakaatu maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar bu ma tibbee sama xol fu sore si sama xol di ko jottali sunu sëriñ sunu xalifa cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bassirou sëriñ Touba di ko teg ci loxoom yi tedd ngir mu jottaleel ma ko njabootu maam sëñ Touba yépp di nuyu sëriñ Amadou Makhtar Mbacké xalif bu Daaru Xuddoos fi teew ak mboolem njabootu sëñ Touba bi nekk sa ginnaaw sëriñ bi maa ngi leen di jottali nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu du ci boole sëriñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké di sa porte parole di nuyu mbokk yi fi teew yëpp ak mbokk taalibe yi ak ñi fi toogal état bi sëriñ bi ñëw naa tey niñ ko daan defee at bu ne ñëw andil la nuyoo ak ziara réew mi yépp ci bés bu màgg bi di bésu lislaam di bésu cheikhul xadim ñuy waajal màggal ki nga xam ne indi na fi ay ngeneel yu bare ci réew mi ci diine ji ak ci àdduna bi yépp ñëw naa ànd ak sama soxna ànd itam ak ministre l'intérieur sa doom sa taalibe ànd ak ñépp ñu fi teew ci turu nguur gi ngir ndokkale si la ci bés bi di sa bés ndokkale la waaye it sant la gërëm la surtout tey tànk yi ma fi ñëwee muy toujours tànk taalibe di tànk doom di tànk it njiitu réew njiitu réew boobu nag jàpp naa ne ci coobare suñu boroom waxtu wi déwén bu ko yàlla dogalee keneen war na toog fii indi la nuyoo ak ziyaara réew mi loolu ci sama coobare bopp la woon ma jàpp ne yëkkati woon na ay kàddu laata ñu may falaat ci deux mille dix noon Sénégal boo leen ma wóoloo de joxaat ma réew mi fas yéene naa yemale sama liggéey ci Sénégal ci ñaari mandat yooyu kon nag topp wax jooju ak fonk ko moo waral ma yemale ko fii ne kon lii di ñëw fas yéene ci bokk waaye loolu du dindi dara ci diggante bi nga xam ne suñu boroom moo ko def muy yéene ji nga am ci man fonk gi nga am ci man bëgg-bëgg bi nga am ci man te ompul kenn ci àdduna bi te ma xam ko it dëgg muy lu nekk ci biir ak lu nekk ci biti kon bu ma tolloo fii war naa ñëwaat seede àdduna bi yépp ne man de sant naa la bu baax këram naa la bu baax ndax saa yu ma fi ñëwee li may wax mooy sëriñ Touba laa lay booleel saa yu ma ñëwee ak soxla sëriñ Touba nga may booleel yebal ma ma dem ci bërëb bi ah ba mu booleeg sëriñ tuubaa nag mooy boole nga mag sa bopp ndax yaay sëriñ Touba. te xam naa li nga nar ci sa biir xol jëm ci man li nga nar ci Sénégal yéene yi nga am ci réew mi looloo waral ñu nit dañu war di wëlbatiku di ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak wér ndax sa yàgg fii njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci doomu aadama yi te it maa ngi lay dënkaat Sénégal di ko dënk kilifa diine yi ndax réew mi toll na foo xam ne ñii kilifa war nañ di yëkkati kàddu léeg-léeg di artu di sàmm ndax ku gis li xew ci Afrique tey ku gis li ñu wóor waruñ toog rek naan ñële la ñële la te seeni ñaan seeni artu seeni kàddu dana delloo ci xel yi loolu sëriñ bi lu am solo la Euh, bëgg naa yow daal kilifa diine yi ngeen yokk sàmm Sénégal yokk di ñaanal réew mi ndax jàmm ji fi am mën a law mën a yàgg mën a yaatu ndax jàmm si la lépp xej ah man nag na ma la ko waxee woon bu jotee incha allahu rabbi euh, fas yéene naa fii bi ba may joxe lenge yi réew mi dinaa ko sàmm dinaa ko aar itam ci li nga xam ne moom la ma constitution jox ba nga xam ne benn yàqu-yàqu du du ma ko seetaan mu ñëw ci réew mi li nga xam ne mooy lii sama wareef maa ngi maa ngi lay santaan nag te la gërëm lépp lu ma deful it ci liggéey bi nga xam ne sumb nga ko xëy na lu yàlla dogalul la waaye lépp loo yëkkati sama xol mooy jàppale la si bu baax a baax ci lépp nag te gis nañu it ngeen li nga indi ci dëkk bu tedd bi di Touba liggéey yu mag a mag yii nga fi sumb ba ci njàngale mu kawe mi muy daara bu kawe bi di université Cheikhul Khadim gis nañu yii ñu fi liggéey mu tombe ak sa xilaafa muy autoroute bi ñu indi fii ba ci Touba muy hôpital bi ñu am fii ci Touba tey hôpital Khadimou Rassoul ah ak yeneen ak yeneen ñu ngi wax ndox meeg loolu yëpp waaye Touba yelloon na ko teyit it euh, man de mbégte la woon si ma joxe ndigal sama gouvernement lépp luy wareef ci dëkk bu tedd bi ñu def ko ndax dëkk bi moo ni moo ni toll kon mu des rek di sàkkuwaat ñaan si yow sëñ bi fépp fu ma dem yàlla mën ma fa jàppale et ma bàyyi itam réew mi ci jàmm ak salaam yàlla aar Sénégal ndax jar na ñaan yàlla génne na fi xéwal yoo xam ne fu mu feeñ nag bu ñu góorgóorluwul rek dana indi safan waaw muy pétrole muy gaas waaye yàlla bu ci defee ñaan ñi nga xam ne it ñoom lañ fi bàyyi ëllëg ñu bàyyi xel loolu bañ a war réew mi ci li nga xam ne réew mi moo ko moom muy alalam su ko defee muy jàmm ci réew mi di jàmm ci askan wi loolu daal sëriñ bi ci gàttal laa bëggoon yëkkati ay kàddu sant la rek ak ngërëm eh, di jottali sant sa taalibe bi soxna Mariam di di la sant di la gërëm di sant mbokk yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. sëriñ sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene liggéey